ahousubillahi samilalim min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irahim subhanaka laa ilma lana illa ma alamtana innaka anta alxalimu alxakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin alayhi salaatu wasalaam wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokki jullit yi mbokki àdduna bi mbokki seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal leen ko bi jaay sidil wujud salawatullahi wasalaamu alayhi ginnaaw loolu di wax ne dellusiwaat nañ fii ak yéen ci Sunugal 24 di leen indil ay waxtaan yoo xam ne nii da ngeen koy faral di soxla jamono bu nekk rek ci seen mbiru diina wala ci mbiru àdduna incha allahu taala mu mel ni nag euh, jamono ji nga xam ne ci lañu toll ci réew mi nga xam ne mooy Sénégal ñëpp xam nañ ne am na ay actualité am na ay xew-xew yoo xam ne moo fi jàll fan yi nga xam ne ci la ñu mu nekk nag ay xew-xew yoo xam ne yu métti la yu tiis la waaye it xew-xew yoo xam ne ñëpp nañ ko manifestation yi nga xam ne nii moom moo amoon le 3 ak le 4 ak la 5 mu nekk lu méttee méttee méttee méttee métti ci sénégalais yi waaye nekk lu méttee méttee métti ci secteur informel bi ndax xale yi li ñu yàq bari na lool xale yi li ñu yàq bari na lool ñu ngi koy métti lu bu baax a baax a baax a baax donte nag seen droit lañ doon kaas mooy di laaj seen àq ak seen yelleef ñu ngi ñaan yàlla rek seen àq ak seen yelleef boobu yàlla na faju waaye ñu ngi jaale ñi nga xam ne nii ñoo ci am ay mbokk yoo xam ne dañu génn àdduna ñu ngi leen di koy jaale di jaale suñu benn jabar bu nekk fii Cambérène 1 ñu koy wax Mati ndeysaan rakam génn ci àdduna borom këram nekkoon suñu xarit rahmatullahi alayhi yàlla na ko yàlla yërëm di jaale mbooleem koo xam ne génn ci àdduna yàlla yàlla yërëm ko xaare ko na di wax ne ñoom ñëpp ay suhadaaw lañ ñoom ñëpp ay suhadaaw lañ ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xam ne da doon défendre alalam ba ñu rey ko shahid la ku doon défendre diinaam ba ñu rey ko shahid la ku doon défendre deretam ba ñu rey ko shahid la ku doon défendre askanam ba ñu rey ko shahid la te ñii nag nga xam ne mooy xale yi li ñu doon défendre yépp seen àq la ak seen yelleef mooy gis nañu réew mi ni muy doxee ci jamono ji nga xam ne mu mel nii rek dafa am benn groupe boo xam ne nii ñoom ñoo occupé alalis réew mi yëpp yore ko di ko jàllantu ci seen biir di def lu leen neex loolu nag moo dem ba fees ci xol yi ñi nga xam ne ni ñooy mboolem sénégalais yi xëy na sax xëy na xale yi ñoo gën a am kàttan mën a génn ci terrain bi waaye bari na ay mag yoo xam ne ni tey wallaahi am na ay mag yoo xam ne tey buñ doon ndaw dañ génn ci terrain bi day wàcc ci terrain bi man mii ci laa bokk ndax Kaolack dama daan dem di sànni ji xeer booba nekkuma woon élève ndax bu xale yi daan grève Kaolack bu ñuy dem damay dem ànd ak ñam parce que injustice baaxul te lu mel noonu laa gis fii nii tey jii nii tey su ma nekkoon ndaw comme xale yi ni xale yi wàccee ci mbedd mi noonu laa di wàccee ci mbedd mi parce que kenn ku nekk gis nga réew mi ni muy doxee ñii nga xam ne tey ñoo yor réew mii nga xam ne mooy senegal faale huñ doomu aadama faale huñ suñ sëriñ yi faale huñ ci kilifa diine yi wallaahi man maa dégg ci Cheikh Mahi Niass mu ne ñi ngi wax naan sëriñ kilifa diine yi nañ wax kilifa diine yi nañ wax wax nañ waaye booy wax ak koo xam ne du la déglu day mel ni waxuloo maa ngi nii ak audio bi te loolu Sénégal moom guléet te ñun dañoo am suñuy réalité mooy képp ko bëgg jiite Sénégal gii ñu nekk te nga ne kilifa diine yi doo leen ci boole di nga taal Sénégal am na ñu wàcc tey ci terrain bi am na ay xale yu xeex am na ay nit ñu toog ci seen kër seetaan te mënoon a wax te waxuñ bokk na ca la tax ñu noppi mooy am xol bu naqari ci li nga xam ne noonu la ñu yoree réew mi ci jamono ji nga xam ne ci la toll. mu nekk loo xam ne ñëpp a ñëpp a ko gis du góor du jigéen mag ndaw ñëpp xam nañ ne nii ñu yoree Sénégal moom ñu ngi ko fi door a gis moom guléet kon nag ñu ngi conseillé tey dénk ñi nga xam ne. ñoo nekk ci kaw nañu xam ne laxoon dafa xonneeku mooy di jiite ay nit ñu mel ni ay xar loolu dootul fi amati loolu jeex na nit ñi yeewu nañ médias yi tasaaroo nañ ci Sénégal partout ñëpp ay xam ne xew ku jàppee nit ñi ay dof wala nga jàpp ne dangay nguuru di dund la neex bàyyi doomu aadama yi booy boo xam ne sa nguur du yàgg gis ngeen ab Diouf li mu fi amoon bi Ablaye Wade ñëwee nit ñi xaw a yeewu amul ko fi Ablaye Wade gis nga lim fi am kii yeggagu foofu sax nit ñi doyal nañ ci moom kon nag na ngeen tiire leçon ci lu mel nii képp kuy dagaan baatub askan wi na nga sóoraale lii bu baax surtout nag ki nga xam ne ci moom la mbir mi jaaree sabab bi daa jaaree ci moom de waaye ñëpp ñu génn Ousmane ko taxul leen di génn de am na fi ñu génn ñoo xam ne ñoom seen raison personnelle moo leen tax a génn mooy am nañ lu leen naqadi bëggoon nañ koo faj amuñ fu ñu jaar occasion am ñu profité kon nag Ousmane Sonko moom itim nag nag bàyyi xel bu baax ci leçon bii nga xam ne nii moom la xale yi jàngale mooy ne képp ku fi bëgg a yore réew mi yore alal ji nam la neexee yore palte gi nam la neexee di buur di bummi ci kaw nit ñi yore justice bi nam la neexee booy boo xam ne balaa nga fay def li fi kii defoon dañ lay yéen dañ la fi jëlee rek mbala lu bari yàqu fi parce que xale yi yéen yéen a leen jàngal ba ñu am xam-xam xam seeni droit xam seen aq ak seen yelleef ba noppi nag lañu moom ngeen téye ko dañuy ñëw ba ci yéen ñu foqarti ko neex na xat ndax am na fi ay xale yoo xam ne ñoo leen ëpp xam-xam fuuf la ngeen jàng la jàng la ngeen xam lañu xam diplôme ya ngeen am moom lañu am. ñooñ nag bu ngeen leen sóoraalewut bu ngeen ñi boo xam ne Sénégal moom dëkk bi dootul neex ñi nga xam ne ñooy politiciens yi ak ñi nga xam ne nii ñooy population bi tant que ñi nekk ci kaw wàccaatuñ xalaat sóoraale ñi ci suuf rek dëkk bi du neex xam nga Sénégal lu ko tax a mooy képp ku nekk ci ab bureau rek moom foog na ne bureau boobu moo ko moom te sénégalais yëpp xam nañ ne dañ la faa tegandi pour nga liggéeyal réew mi. wallaahi léeg-léeg nga dem ci béréb boo xam ne kañ fa teg mu fay liggéey moo ko yow yéen a ci yem ndax moomut ko dafay liggéey ñu koy fay salaire bu retraité jotee day retraité keneen ñëw jël place nga ñëw mu di la maltraité di la manqué de respect ba nga am gàcc minu la man am naa ci benn anecdote boo xam ne man maa ko dund dem naa ci hôpital fii ci Sénégal ci dakaar gii sama soxna di am doom ma dugal ko taxi ñu ñëw ba ci buntu hôpital bi muy waaj a matu ma daw dugg ci hôpital bi pour wax ak ñi nga xam ne ñooy sages-femmes yi pour ñu gaaw ñëw dimbale ndaw si mu génn dugg ci hôpital bi pour bañ a am doom ci biir taksi bi mais ñu nekk di ma draayee di ma maltraité ba ndaw si amee doom ci biir taxi bi. ba ndaw si am doom ci biir oto jàmbur loolu dafa ñaaw ci ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yore bérébu liggéeyukaay yi nañuy ñuy sóoraale ñuy dem ci ñoom ngay dem ci ab mairie ñu minimise la nga dem police noonu nga dem gendarmerie noonu nga dem ci place yi nga xam ne ni mooy nga dem benn ministère noonu ñu gëdd la harcelé la ñàkk laa faale sénégalais yi ñi nga xam ne ñu nekk ci kaw war nañoo xam ne loolu dafa jeex nit ñëpp a yeewu même ki nekk ci daara ji sax léegi média yi informé nañ ko ba mu xam ne moom am na àq ak yelleef ci li nga xam ne ni mooy li nekk ci réew mi muy alal jeeg place yeeg hôpitaux yeeg police gendarme maire yeeg ah ministère yeeg yëpp kenn ku nekk xam na ne dafa xam àq ak yelleef loolu da ko bàyyi xel. ndax gis ngeen senegaal gii jamono jii ñu toll nii xale yi jàng nañ am nañ xam-xam te kenn yarut lañ yarut leen te xam nañ seen droit xam nañ itam seen devoir donte nag defuñ ko ndax bari na xale yoo xam ne nii lay seen devoir defuñ ko dañu ñu ngi laaj seen droit nguur gi na wàccook askan wi nax bi ñuy nax nit ñi xam nga li gën a nekk gàcce léegi ci Sénégal li gën a nekk gàcce ci Sénégal mooy nga ne man politicien la ndax boo ko xasee wax rek boo ko xasee do rek jàppee nañ la wax ko waxkat lu dul noonu koo xam ne day fen daal maanaam te loolu dafa ñaaw ba da nga yëkkati genn kàddu sax wax nga dégg ñu ne ah waxi politicien la amoon naa sama benn mag mu nekk oustaz yor école arabe di jàngale ba mu yàgg ma dugg ci politique bi te fekk da daan waxtaan ñëpp di ko déglu mujj gi rumeur yooyu commencé jóg oustaz de léegi politicien la bu waxee sax nit ñi naan est-ce que ce que est di poser question mu daal di génn ci politique bi. ma ne ko dox ma génn mu ne dañoo dem ba commencé sensé man sama sama sama sama comportement bëgg maa boole ci politiciens yi te man ba ma nekkee ndaw ba léegi man oustaz laa mais lu ma dugg ci politique bi rek tax ñu commencé yàq sama der lu ne ñu jël ko adressé ma ko bu na ma. yegg foofu nag ma ne ko fi ñukkut a continuer li ma nekkoon po Sénégalais yi politiciens yi war nañuy bàyyi xel loolu bu baax xam ko mooy ñu xam ne politique baax na daggan na ci lislaam mais nañ ko rafetal mais yàq nañ ko ñaawal ko ba ñu nit ñëpp boo ne politicien la ñu jël jikko yi tegal la ko fenkat euh, workat ak détourné alal fen wor détourné fu mu nii képp koo xam yaa ngi yëg ci politique rek nit ñi jël nañ mbubb moom solo la ko mais pourtant am na ñu baax pourtant am na ñu jub loolu nag sénégalais yi war nañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax baax baax te it képp ku fi toog na nga sóoraale suñ kilifa diine yi na nga boole suñ kilifa diine yi soo leen boole xut da nga sonn ku fi toog na nga sóoraale daara ji na nga sóoraale daara ji ku leen sóoraale da nga sonn waxuma ne moo ko waral de waaye sama caméraman bii keroog ba ñuy ñaan ca parcelle ca unité 13 en face euh, hôpitalu maam Abdou ñaan nañ fa 10 heures ci suba ba 3 heures keroog bañ fa ñaanee ba ma introsé benn imam sama caméraman bii moo ko doon jël daf ne liñ ñaan fii tey doy na waar. su fekkee ne ñi nga xam ne ñoom lañ ko séqat xam nañ ko ba ma laaj ko ne ko est-ce que liñ fi ñaan dina jig réew mi mu ne ma ñin ñi ko ñaan sax ñin ñi ko ñaan sax xam nañ ne tiit nañ parce que li ñu ñaan dafa garaaw boobu ak léegi un mois la juuf ñu xobaay bañ daara mii dañu xeex daara yi amoon programme ci mois de janvier février mars ne dina fi jëlee juróom benn junne dongo ak ñeenti téeméeri dongo ci 15 milliards programme am yàqu na ndax weer wi moom kenn talu ko weer wi kenn talu ko moom ak Ndeye Saly Diop ñoo àndoon ak ñañ ko séqal ak seen njiit di Macky sàll ne moom dina def kut ko kut pour daara jóge Sénégal gis nga daara bu ngeen ko bëggee supprimer fii Sénégal Sénégal mooy supprimer ndax alxuraan la ñoom ñoo yor alxuraan ji di ko jàng di ko jàngale te yàlla moo ne alxuraan ji maa koy wut yàlla du ñëw di téye téere bi déedéet yàlla du téye téere bi ñu yor alxuraan ñooñu la yàlla di protéger bul alxuraan ba dafay jóge ñu yore alxuraan ñooñu la yàlla di protéger defe naa ne zéro enfant dans la rue la ñu waxoon xale yi wàcc nañ ci mbedd mi jaxase yàq des milliards des milliards. ana Ndeye Saly Diop ana Diouf ñoo ko bàyyi luñ ci man tus li fi ñii def moo gën a garaaw fuuf moo gën a garaaw téeméeri junni ak fukk ak benn ci les enfants yi def taalibe yi ñu doon yi ñu doon ramasse 15 milliards ngeen génne woon pour jël fi ay taalibe seen doom yi seen njaboot yi yàqal nañ leen des milliards te mënuñ ci dara fukki nit ak benn génn ci àdduna yàlla na leen yàlla yërëm kon nag sénégalais yi nañu xippiwaat seen bët xool bu baax a baax. ci réalité yi nga xam ne mooy dox Sénégal dafa am ay réalité yoo xam ne ku ko fi bëgg a génn di nga tas réew mi Macky Sall xamul Sénégal ni muy doxee lan moo tax mu dem ba suñu village ñun dëkku àll ñu am ay xar am ay bëy am ay nag am ay fas ak ay mbaam ñu ne kenn dootul yeew sa mbaam ci biir kër gi doo fa yeew sa fas ñu toog ba digg nawet service du jeune ñëw fekk la fa nga yeew sa fas ci biir kër gi wala sa mbaam mu bindal la kayit ni la ñëwal département Malem pour nga fay ci koo xam ne mu ngi ne woon ngéej 200 yoo xam ne dina ko dépensé koo xam ne mu ngi ne woon ngéej téeméer mu joxee dépense yow nga ñëw bindal ko kayit ne ko ñëwal fay dëkkub àll loolu noteel weesu wut loolu danga gis koo xam ne dañuy ñëw bindal ko ne ko kaay fay mbaam mi mu yow ci biir kër gi fas yu mu yow ci biir kër gi moom lay liggéeyee te li ci gën a doy waar nag boo ko génnewoon kër gi bu ko sàccee boo gaañee sàcc bi ñu jàpp la bu la sàcc bi gaañee nga perte te sàcc yi dañuy armé te bu ñu ko sàccee boo ko jàppoon boo ko yóbboo gendarmerie wala police bu ñu ko téyee une semaine deux semaine nga gisaat ko boo ko yeewee ci sa kër gi ñu alamaan la lu tax lool nooteel boobu nag daa war a jeex ci réew mi ñoo xam ne ñun Sénégal yeggagul foofu Sénégal yeggagul foofu dëkki àll yi dañ leen bàyyi ñu mën a dund nañuy dundee mën a yar seen xar yar seen bëy yar seen nag nañ ko bëggee dëkk boo xam ne amul oto mbalit amul poubelle amul dara nit ki dëkk ci digg dëkk bi nga ne ko sa mbalit mi dee ko yenu di ko génne ci biir àll ba di ko fa yóbbu waaye amul mbaam amul sareet bu tuuree ci ginnaaw këram nga ne ko lu tax bale ko ratt ko wala mu bindal 6000 digg nawet service di sën ñëw di bindal nit ñi ay këyit ñuy dem suñu département Malem li may wax loolu leer la parce que dañ maa fekk sama kër man dañ maa fekk sama kër service di sën bu Malem Odar damay wax lu leer la ñaxeen ñëw foofu di bindal ay nit ñu leen di yóbbu Malem pour ñu dem fay ci digg nawet boo xam ne nit ñaa ngi ne géej la ñu lekk loolu moteel la jaay doole ak ñakk xam li nga xam ne nii moom la baadoolo yi di dund yéen ñi nekk ci kaw sóoraale leen baadoolo yi nangeen xam baadoolo yi ni li ñuy dund waaye bu leen nekk ci oto yu neex yi kër yu neex yi salon yu neex yi bëgg a jël li ngeen dund ngeen bëggoo teg baadoolo yi ci àll bi loolu day métti lool kon ñu ngi jégalu bu baax lii mooy li nga xam ne ni bëggoon nañu ko indi suñu point de vue ci actualité bi nga xam ne moo am Sénégal ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax di wax ne jaaxal na laa mi ne la si yestamee noonu xaraf yoo tamit ostana wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf